ni moom mooy projet de loi d'amnistie bi tu es pour ou contre. non contre contre à deux cent mille pour cent. mais mais Ousmane ko mun na cee euh, amaat li nga xamante no non président Ousmane Sonko ko Ousmane Sonko dama ne la warul woon dugg sax ci jeel bi ba fay des ni mu ni ñu génne prisonniers politiques yi dañ ko war a génne soxlawul amnistie soxlawu ko ni ñu génnee détenus politiques yi nee naa la am na détenus politiques yu génn te taxawuñu. Mhm. jaru ko amul sens. ba pare le président Ousmane Sonko boobu nga wax. moom moo njëkk a dénoncé amnistie. Ah, wala koy fàtte moom waxagu waxagu ko de. depuis non si depuis ñu euh, taxawal li nga xam ne moom mooy. loi non mais moom moo njëkk a dénoncé laa boobu duggagul kaso bi wax ko avant muy dugg ci kaso bi ak actuellement saa yi tamit nag. moom loolu la ñuy loolu la ñuy jàpp mais mënoon fekkoon moom il xamante ne moom mooy amnistie bi moo nañ ko xaar amaana. mu mais waxoon na ko ba pare. wala bind ba pare. mais il avait président Ousmane Sonko moo taxaw ne ñun waruñoo d' accord ci amnistie bi amnistie bi dafa mel ni kon trahir nañu suñu suñu moor yi dafa mel ni kon lu ñu doon wax ni ku ci dee yaa perte kon dëgg la te pourtant booy deewuñu perte ñu non perte ñu parce que dañu xeexal seen réew constitution moo leen ko may ba ay bal perdu fekk leen fa wala ay bal réel euh, faat leen ñaata manifestation ngay gis muy am ci réew yi. Mm. ay manifestation yu tar yoo xamante ni moo gën a tar fuuf yi fi xew. te doo gis kenn ku ñu xokk baa ku ñu wokk baa ñu xuri ko léegi yooyu yëpp ñu bëgg ko sànni ci mbalit ba le président Ousmane Sonko a été clair sur l'amnistie il la dit man lu ma jàpp nit mooy lu mu waxoon il l'avait dit clairement mais mais actuellement comme gars ñu ngi naan dafa am wax ci suuf waxtaan ci suuf am na intermédiaire. Ah, est-ce que tey kon waxtaan loolu li ñu di wax parce que bu ñu dégloo Atépa amoon na intermédiaire même bu fekkee sax. waxtaan bi toog waxtaan amul mais amoon na ay intermédiaire yoo xam te ne ñu ne ko ci diggante bi est-ce que tey actuellement nii nii nii nii nii ñuy ñuy ne moom bi est que euh, moom tamit silence am tamit nekkul loo xamante ne mën na semer ci ni nit ñi ah man day man de mu bind baa mu wax. kilifa la man du ma ko waxal lu mu waxul. wax dëgg yàlla. Mhm. mu ngi instant bi mu ngi ci jeel bi. te nag ñu ko ñaan mu génn gaaw. mais silence bi en fait may wax ak yow sax maa ngi ñaan yàlla mu génn gaaw. mais moom bu génnee dina leeral lépp gëm naa ko parce que président Ousmane Sonko loo ko mës a waxal amaana bu ci àndul dina génn dénoncé ko. kon moom bu génnee dina waxal boobu waaye man ci lu ma mën a référé. Mhm. mooy dafa taxawoon def conférence de presse ne moom lui il n'est pas d'accord sur l'amnistie d'accord ci tey d'accord ci ëllëg parce que mënuñu suñu injustice ñu fi dund ay nit luubal suñu ay alal ba pare ñu bëgg a ñëw ne dañu koy sànni ca mbalit ba non loolu c'est trahir nos morts c'est trahir le peuple même loolu moom ku ko voté trahir le peuple bi saa c'est sûr parce que dama ne wa comme ni ko maa ngi dégg sax gars yi di ko wax sànq xam nga am na si mooy lan mm-hmm. <laughs> Macky Sall baal naa leen baal leen ma yàlla ñu yàlla boole baal <laughs> loolay am na si bi de baal leen ma baal naa leen yàlla ñu yàlla boole baal. Mm. wala sax mu ñu ñu tuddee ko sax baal sama bopp par force yow maa la tooñ. Mm-hmm. mais man maa man maa man maay baal sama bopp man. yow xaaruma yow nga baal daal kon da ngaa wax ni moom euh, amnistie moom moo ci. non bien sûr question wu yaa xam mbay bi day ñëwaat bi ma la waxoon bi ma la waxoon sànq. maanaam est-ce que yow aar nga sa njaboot. ba nga xam ne du ñu tiit waaw ba couvrir nga sa njaboot ba du ñu tiit. loolooy amnistie bi képp. kon da ngaa bëgg wax ni kon amnistie bi looloo ko wundu. mais Macky Sall bakkanam la teg ci amnistie bi di gisoon ni mu ci waxee. Mm, que procédure d'urgence la de. Euh, bakkanam la ci teg waaye nag ma wax leen ko rek. ñoom ñoom ñoom moom seen assemblée dëgg la parce que euh, kuy voté loi moom indi ay gendarme gendarme pour ñu voté yaa ko moom de waaye loi loi ko dindi de loolu moom dafa leer naañ gis nga lii nii. Mhm. ñu teg askan bi. ñoom mhm. ba yii ñu fi def. ba pare bëgg koo raxas. non dañ ko fay parce que gis nga euh, Bintou Rassoul. Mhm. liggéey Sénégal ci loolu la war a commencé moom laa la doon wax sànq. il faut que ñu forcer suñu dirigeants yi pour ñu respecter ñu. tey moom laa la wax nekk ci nguur warula tax a def maa tey nekk ci nguur warula lu la neex def di ko teg askan bi donc am na si boobu moom xoolal baaluñu ko tey baaluñu ko ëllëg koo xamante ni tey luubal nga mës nga waaw yow yow Bintou Rassoul dinañ toog fii. dégg fi nit ñu ne yoroon nga fi ay faux billets ñaata milliards. Mhm. ba ñu gis ko sax muy corrompre benn agent assermenté. flagrant délit ñëpp gis ko kooku mu ngi dox ay soxlaam nii di vaquer ay occupation am nii li fi yàq réew mi ci 2021 ak yooyu gis fi jigéen bu tuumaal euh, kilifa yooyu yëpp ñu bëgg koo raxas non c'est incroyable loolu ñaata kas moo fi am ñaata nit ñoo fi ñàkk seen i seen i ñàkk seen i liggéey ñàkk seen i euh, seen i seen i cër ñàkk seen liggéey ñàkk seen i am am sax ñaata nit lañ fi fekk seen i ay bagage toj ko taal taal ñii ñàkk seen i am-am ñu bëgg wax tey loolu day jàll noonu dañ koy raxas dañ koy fàtte non mel ni ngelaw bu rek ëf non mais c'est ak li ak économie fi taxawee bi ñaata yoon lañ fi toog ne nit ñi bu bu sa doom yi jàngi ñaata yoon lañ fi toog ñun liggéey bi am na ñoo xam sax fayeekuñu salaire ñaata commerçant ñoo fi toog di euh, doon ko ñàkkante te pourtant ci ay fan yoo xamante ni toog nañ fi liggéeyuñu ndax ay affaire de kas ak ay affaire de yàqte ay affaire yoo xamante ni yu ñàkk fayda la ñu bëgg ko jël noonu raxas kon ça veut dire que kon prochain dirigent yi fi ñëw sax du ñu respecté ñoom tamit dañuy ñëw def lu leen neex après suba tamit ñoom tamit ñu ne amnistie non il faut qu'on respecte la pays te moom laa lay wax sànq ci trois pouvoirs yi tant que séparé wuñ ko yii rek moo fi am di nga gis saa su ne ñu ñëw indi seen projet de loi voté parce que da ngay dem ci réew man chaque fois foofu laay jëlee référence. Mhm. réew yu normal yi da ngay da ngay gis président wala gouvernement bu jël loi am ñëw teg gu assemblée bi jël sànni volet ne ko li nga jël nii baaxul àgguñu ci. loolu mooy démocratie ñun démocratie ma ma ma rajo taali euh, malheureusement bi ñu rasul ñun dañ koy dégg nii rek mais jëfewuñ ko démocratie dafa war a yaatu démocratie dafa war a dem ba lalu ci dëgg lalu ci loo xamante ni tey ku ci yéeg tey ñu dénk la réew mi nga doxalee ko ci démocratiquement te nag boo ci defee li nga warul def bu subaa ñu nga rendre compte démocratiquement justice bi def liggéeyam lu ñu la war a daan ñu daan la ko et puis le Sénégal continue c'est ça mm-hmm. moo wax la war a tëjee ko mm-hmm. du nous ne serons jamais d'accord ci amnistie mukk voilà parce que nous pensons à nos morts. mais tey bu jàlloon assemblée. moom moom laa lay wax loi loi koy dindi. Mhm. le prochain président il day ñëwaat dindi loi bi parce que ñi fi def jombe foog ñu rendre compte. Mhm, encore une fois loolu moom dafa mhm. nga tàggoo ça a été un plaisir dalal la ba élément bat nga baale nga tàggoo ñu ngi seetaan à travers Dakar Média. oui le plaisir est partagé Bintou Rassoul euh, Dakar Média moom sama. daanaka sama kër la yàgg naa fi def ay sorti mhm. moo tax bu ma woowee rek dama ciy sawar mhm. di jégalu nag ci kàddu yi lu ñu ci wax lu dëng rek ñu ngi ciy jégalu bu baax yaram bi xaw na tàng tuuti mhm. mais lu ñu fi wax rek lu ñu jëng suñu suñu jëmm ji la lu ñu fi wax lu baax ñoo xam ne suñu borom la di wax ni lenn rek ñoruñu lu dul intérêt Sénégal yàlla na Sénégal am jàmm nañu fexee ni ñu jiboowee te delloo si waat xel yi te xam ni ñoo bokk suñu réew lu ñu lépp dara taxuñoo jóg lu dul Sénégal baax mu baax ci ñëpp képp ku yeewoo Sénégal nga gis sa bopp ci réew mi Forever Sénégal. voilà ami chers fidèles internautes ñoo ko euh, gisandoo tey élément Batt moom la ñu dalaloon fii ci Dakar Média waxtaan ak moom ci actualité ak la ci aju dégg ngeen bu baax a baax moom gis-gis bi nga xamante ni am na ko euh, tembe ci li nga xamante ni rek moom mooy réew mi di leen jox rek dig daje incha allah rabi très prochainement ak beneen invité d'ici là portez-vous bien merci.